Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di amaat mbégte lu bare bari jàkkaarloog yenn fii ci am Amsa TV andilaat leen seen émission bii di avocat émission bi nag nee naa leen ba tàyyi seen émission la yéen ko tax a jóg te macha allah xamee ngeen ko noonu ndax ñu ci bari ñu ngi bàyyi xel émission bi te itam ñu ngi jël numéro yi ñu ngi ñuy woo macha allah di ñu wax li nga xamante ni ay kaa la yu ama am solo macha allah ak kaa yi nu mu mën a mel rek. ak nu kaa bi mën a bindoo incha allahu rabbi na nga bàyyi xel am saa ci émission avocat sa kaa boobu nga xamante ne moom nga fa bàyyi di nga ko dégg dinañ ko waxtaane lépp ci li nga xamante ne rek mooy kenn ku nekk li nga xalaat ci kaa bi bu jibee boo ko dégloo da ngay daal di woote boo wootee tamit lépp loo xam ne xel la wala xalaat wala foo ko mën a yabal lépp di dimbal ci biir émission bi nit ñi ñoo ngi koy def fu nekk ñoo ngi fay woote ci àddina bi ci biir émission avocat ñuy gërëm bu baax a baax a baax mbokk yi nga xamante ne dañuy bàyyi xel saa su di ñu woo ak mbokk yi nga xamante ne dañuy dégg kaa boo xam ne dafa metti ñu daal di woote di masaw ki nga xamante ni mooy borom kaa bi wala ñu bëgg ko jàppale wala ñu bëgg ko yebal foo xam ne léegi léeg sax dañ ciy gis koo xamante ne day naan yebal naa ko bërëb sàngam dina ko envoyé lépp loo xamante ni mooy li ci war ndax sénégalais dafa bëri yërmande ci moroomu sénégalais sénégalais ci boppam mu ma yërmande ci doomu aadama ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di wax rek na émission avocat tey dafa indi cas boo xamante ni cas bu doy waar la macha allah kii nekk benn xale bu góor bi nga xamante ni mm, dafa nekk fii Sénégal di liggéey am jom lool macha allah bis jot muy wàcc li nga xamante ni mooy ab tukki nekk ci di waajal tukki boobu ànd ak ki nga xam ne mooy waajuram bu jigéen bi mu ànd ak waajuram bu jigéen ci réew mu Gambia pour xam naa ne ñàkkul am na yu mu soxla pour yaramam. bi mu demee foofu it nekk benn kër tàntam bi mu nekkee kër tàntam nee na benn waxtu timis mu jékki-jékki am loo xam ne dafa mel ne da koo xoj fatt yem yaram bi tàng jër mu tëdd ko def ko feebar fu nekk nag mu dem fa di sàkku li nga xamante ni mooy faju mais yàlla dogalul mu am ko muy sooxaale ak loolu nga xamante ni moo ko dal waaye hôpital bu ne dem na fa fii Sénégal dem na it ci ay maaman pour ñu jàppale ko ci wàllu faj yi nga xamante ni ñoom moom lañ am ci wàllu xam waaye xale bu góor bi loolu mu jéewu ko bàyyi waaye nag tëralu ko ba jàpp ay cëram ba tax mënul dara mu daal di continuer def voyage am nga xamante ni moom la dëgg ma loon bëgg ko def foofee ca itali bi mu euh, dëgmalee itali yàlla mi dara tëwul dogal mu yegg ci jàmm ak salaam bi mu yeggee nee na euh, amu fa jafe-jafe ndax bi mu amee ñaari weer la ko yàlla may mu am séjour muy loo xamante ne naam am nañu fa am ay benn at mbaa ñaar mu xaw a jafe ci ñoom waaye moom yàlla mi dara tawul yombalal ko mu nekk ci réew ma di wut liggéey mais mu jafe ci moom pour mu am liggéey ba pare mu jafe ci moom tamit pour ci wàllu wirgi gi yaramam mu toog toog foofu ba mu yàgg mu ne xëy na bu ma changé dem beneen dëkk yàlla mën na ma dimbale lii nga xamante ni moom laa fi sàkku si muy liggéey mën naa koo am nee na mu jóge ci dëkk boobu dem fi nga xamante ni mooy Allemagne bi mu demee Allemagne it wax na ne dafa doon sàkkuwaat ci dëkk boobu benn kayit bi ñuy wax asile kayit boobu nag bu koy sàkku ci dëkk doo wane ni am nga benn kayit ndax bu fekkee ni wane nga ne am na kayit wala bu ñu gisoon kayitu itali boobu mu am dañu koy delloo ci dëkk boobu mu jóge muy itali mu demandé asile yàlla def mu am ko bi mu ko amee it euh, commencé bëgg liggéey waaye nee na lu bari foofu li fa ëpp ci liggéey ci côté bi mu nekkoon mooy nga nekk ci wàllum li nga xamante ni mooy ordure bi di mbalit wala nga nekk ci maçonnerie bi te moom Euh, li nga xamante ni mooy wér-gu-yaramam mayu ko muy liggéey loolu mu daal di jógewaat foofu laataa nag mu fay jóge dafa xamante xamanteeg benn tubaab nee na bu ñuy wax dañal daal di koy tawat li nga xamante ni moom ne ci moom di ko metti mu xamal ko ni ko dinaa la yóbbu fii benn hôpital bi nga xamante ni macha allah sawar nañ ci wàllu faj hôpital bi mi ngi nekk Bayaan ci dëkk bu nekk Allemagne hôpital bi mi ngi tudd Simujin ñu yóbbu ko foofu ñu toppatoo ko macha allah xool li ne ci moom def ay analyse def ay rajo mais ne lépp négatif. xale bu góor bi soo xaat noonu ak métitam ak ñàkk liggéeyam ak mu ngi bëgg a yàgg yi tamit Europe. nee na mu jóge fa dellu siwaat Italie ndax dafa bëgg renouveler li nga xamante ni mooy séjour bi ko yàlla dimbalee mu ñëwaat itali renouvelé waat séjour bi mu jugewaat fa dem na fi France dem na fi Espagne dem na fi dëkk bu ne yàlla mi dara tawul def mu dem mujjee fii di Portugal bi mu demee Portugal tamit bi mu commencé foofu di liggéey yàlla dimbali ko commencé di ko ubbil buntu wërsëg bi mu commencé di ay buntu wërsëgam di ubbeeku ci dëkk boobu nga xamante ni mooy portigal xale bu góor bi xam naa dafa nekk koo xam ne rek xëy na bëgg a tekki da koo sonal lool ba tax na buy dugg ci mbir du jiital xelam du jiital xalaatam dafay ñëw rek soobu ci te loolu yàlla nañ ci yàlla musal ndax bu la dee gaañ rek du la ndànk bu baax la lay gaañ bu góor bi xamante ci Facebook bi ak koo xamante ne nee na ñàkk la mi ngi dëkk euh, ci dëkku ñàkk yi xamante ak moom di waxtaan ak moom ci Facebook bi ñu nekk ay xarit di waxtaan guddi ak bëccëg. suba ak ngoon nee na waa ji mi ngi dëkk Gana muy waxtaan ak moom ci biir wax ji mu xamal ko ni ko comme que yow dangaa bëgg a tekki te lii nga wax yépp jaar nga fa dama laa bëgg a jàppale bu ma la jàppalee nag dama lay def millionnaire dama lay def millionaire bu ko defee nga delluwaat Sénégal investir sa réew def ay entreprise ibbi sa entreprise préparer sa lépp li nga xamante ne bëgg nga ko def nga toog foofu liggéey nga jóge fi nga nekk Europe ko métti métti yépp yaa ngi ko fay dundoo xam naa xale bu góor bi nekk koo xam ne xëy na bëgg a tekki da koo sonal trop ba tax du analyser lépp loo xamante ni moom lay jëflanteeg waa ji rek du xalaat xelam dafay jiital rek xoolam topp li nga xamante ni muy bëgg-bëggam ci biir loolu waa ji xamal ko ni ko damaa bëgg a def ay sarax ci biir sarax yooyu may def nag il faut nga envoyé ma 300 euros waa ji ni ko 300 euros mu ne ko waaw mu ne ko waa baax na waa ji yëkkati 300 euros. envoyé ko ko mu commencé di ko xamal ni ko da ngay lal benn morceau bu weex boo ko lalee jël siwo def ci ndox taal ay sondel toog xaalis bi day jékki-jékki rek ñëw ma yaakaar ne xanaa xale bu góor bi xëy na moom mooy comme li ma wax rek waaye xam nga ne loolu nekkul loo xamante ne lu xel mën a nangu la. waaye nee na ci ni ko waaj di expliquer ak ni muy jëlee photoom di ko teg ci xaalis bu bari bi di ko ko woon di ko xamal ne ko lii ci xaalis cent trente et quelques la te lépp yow yaa ko moom. waa xanaa kay bu fekkee ne dafa ne la 130 millions yi yaa ko moom te yàlla def na ne envoyé nga ko 300 euros li nga xamante ne nee na la yaa ko moom te ma nga fa tege xanaa soxlaatul kay buy def beneen sarax nga di ko yónnee waat ci li xel mën a nangu bu fekkee ne da nga ma tegal foofu 130 euh, quelques euros yu ma moom yónnee naa la 300 euro nga def sarax wax nga ma ne ma da ngay teg siwo bi teg morso bi taal sondali xaalis bi dina ñëw ci yow waa bu fekkee da nga maa laajaat beneen sarax. du ma la wax ni la tibbal ci sama xaalis boobu nga def sarax waaye xale bu góor bi xam naa gisewu ko noonu mu continuer ak moom nee na ñuy dem ba mu yàgg bi mu ko lalloo morso bu weex bi ak siwo bi mu xaar-xaar gisul dara mu ne ko yii kon am na beneen sarax bu ñu war a def xale bu góor bi rek ba léegi it bëgg bëgg a ubbi entreprise Sénégal rek mu daal di koy laaj mille euro waa ji envoyé ko 1000 euros yi mu defloo waat ko comme ni mu ko defloo woon mu lalaat morso bu weex taalaat ay sondeel tegaat si woom def ci dox di xaar 130 millions yooyu bi mu xaaree xaar ba sonn yàlla dogal na mu jéewul gis 130 millions gisul daal dara ci xaalis mu ne ko yow sa mbir dafa dëgër dafa am loo àndal comme xale bu góor bi am na feebar bu ne ci moom boo xam ne hôpital du ko faj def na analise def na rajo gisuñu dara ci moom mu jàpp ni lii xëy na leneen la mu xamal ko ne ko am na loo àndal li tax affaire bi dëgër lii ku ma ko mës a defal dafay toog rek affaire bi ñëw te xaalis bi mi ngi nii ma jal saa su nekk mi ngi koy woo ay appel vidéo di ko woon xaalis bi di ko xamal ni yaa ko moom dans les normes dafa war a jóge fi mu nekk rek ñëw dugg ci siwo boobu nga xamante ne moom nga def ndox lal sa morso bu weex taal say sondel ndax nii laa ko daan defee te mësul rate kon am na loo àndal ci biir loolu mu laajaat ko xaalis xamal ni ko dama lay defalaat beneen sarax xale bu góor bi ne ko baax na daal di yëkkatiwaat xaalis bu xaw a takku envoyé ko mu di ko envoyé di ko envoyé di ko envoyé ba nee na envoyé na ko 9000 euros ci xaalis bi mu ko envoyé 9000 euros nag ci xaalis xam naa mu sentir ni kii li ma ko envoyé mi ngi bëgg a bëri ndax bi mu ko mujjee wax ni ko envoyé ma rek da koo xamal ni ko envoyé naa la 10000 euros moom ñag bi daal di ko koy envoyé envoyé ko reçu bi ni ko bu ko jëlagum bàyyil ba suba moo def sarax bi ba pare. ci biir loolu mu laajaat ko beneen xaalis mu envoyé ko mu xëy moom ñag bi dem retiré ji xaalis boobu mu ko envoyé woon te yónnee ko récépissé xam naa loolu moo ko xaw a merloo moom mu daal di dagg billet ñibbisi si Sénégal xamalul ay mbokkam ni ñëw na am fenn fu mu nekk di fay journée après mu waajewaat foofu nag dëgg dëgmal Gana pour seeti waa nga xamante ni moo lekk 9000 euros bi nga xamante ne jàpp na yoon jëm Gana yàgg na ci yoon bi escale na ay dëkk yu bari ndax dafa doon jël ay oto di wàcc bi nga xamante ni dem na lim yoroon ci xaalis bariwul bi mu demee ba expliquer leen won na leen vidéo yi nga xamante ne ca la waa ji nekk waaye nag waa ji foo ko fekk ci vidéo yi muy def rek mi ngi takk masque mi ngi takk ay ver loolu xam naa ne dafay dafay nëbbatu ndax loolu képp ku ko gis même boo ko xamee mën nga koo bañ a xàmmee mu dem Gana bi mu demee dem na ci commissariat yi. waxtaan na ak ganayen yi waaye defuñu lu dul la mu jote jotoon a dese ci wàllu xaalis ganayen yi mu nekkaloon dañ ko xamal dañ la koy wëral jox ñu temps ñu jox leen xaalis boobu moom mu yëkkati xaalis boobu jox leen ñu dawaat ak alalam mu gën a jaaxle di woo waa ji di ko xamal ne maa ngi gana mu ne ko dafa am sarax boo xam ne waroon nga ko def ba pare doo ko ñëw gana comme ñëw nga ganam mënoo maa gis ndax defoo sarax boobu waa ji wër kaw wër suuf ba léegi nii gisul waa ji mu jàppaat yoon di ñibbisi mujj ko ne mujj ni ko dama bëgg nga dimbali ma ngir yàlla envoyé ma lu mu mën a paase delluwaat senegal nee na mu envoyé ko 100 euro ni ko boo demee ba Wagadugu dinaa la envoyé waat xaalis waa ji dem di dem ba egg foofu mu ko wax Wagadugu bi mu mujjee dégganteeg moom mujj gi du ko nangoo jël muy insisté ci yeneen numéro waa ji deseetul dara. amatul sax paas bu mu dépasse déplacé foofu mu nekk dem ci beneen dëkk ngir gën a jege Sénégal bi mu demee ba nga xamante ni sonn na bi mu woowee waaj ji ci beneen numéro waaj jël ko waaj ji 8000 francs la ko mujj envoyé ndax ñàkk xaalis mu mel ni moom waa ji sax moo ko tane 8000 la ko mujj envoyé ba pare coupé numéro bi nga xamante ni moom la doon déggante ak moom bi mu demee ba Mali nee na dafa woo koo xamante ni dafa nekk garage boo marché mu xamante ak moom kooku moo woote foofu Mali am kum ko kooku moo ko àndaale gratuite mu dem a dem a dem a dem ba xam ne nag fi mu ne nii ku xamatul fa nga jëm dangay dellu fa nga jóge woon mu war a ñibbiwaat ay parents ndax envoi bi mu ko envoi bu mujj bi sax yaayam la woo wax ko lu amul yaay ji ab cent cinq cent mille jàmbur envoyé ko ko sëram ab cent mille franc jàmbur envoyé ko ko pour mu mën a dajale envoyé ki nga xamante ni mooy ghanéen bi pour mën a jot ci cent trente et quelques millions yooyu moo xamante ni moom la ko dig waa ji nag ba fii ñu toog di ko wax mu ngi Sénégal. mënatu la dellu bitim réew mu ngi tànte ñaar dërëm yoratu ko ñuy wax mbokk yi nga xamante ne dañuy dugg ci Facebook bi lu bari di am ak affaire ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne ñooy ñoom la ñuy wax ay ñag ñu moytu bu baax a baax a baax ndax kat yaakaar naa ne per bopp weesuwul nit ki ni la lii sa xaalis la yaa ko moom mi ngi tege damaa bëgg a def ay sarax faw nga yow nga envoyé ma beneen xaalis te xaalis di xaalis rek. bu fekkee ne da ngay defal nit ki sarax xaalisam ma ngeeg yow jël ca nga jënd sarax boobu nga defal ko ko mais boo demee ba di ko woo di ko laajaat xam nga ne loolu nga koy dig dara amu ca ngeen bàyyi waat ko xel bu baax a baax mbokk yi ñu ngi leen di xaar ci commentaire yi ak naka ngeen gisee li nga xamante ne moo dal waa ji ak lu ngeen koy xelal kon nag fii la ñuy yem ak yéen ci seen émission avocat ci biir am Amsa TV jër ngeen jëf semaine prochaine incha allah. Bienvenue sur Salam Vision.